bés bi nga xamante ni moom la àdduna wërngal këpp di màggal tuddee ko 8 mars jigéen yu nekk ci commune bu Diass ñoom demuñ ñu des ñoom nag bëgg neen ibbi ay boutique économie yoo xamante ni dañ ciy jaay ay produits locaux ñu tuddee ko Made in Diass di ko yóbbu sax ci aéroport ba. taxawaay boutique boobu dafay am solo ci biir commune bi parce que bépp produit boo xam ne dañ koy defar fii ci biir commune boo demee di ko fa fekk tey jii boo tout près de aéroport AIBD tey dem voyage lu mel ni céréales yi boo demee di nga ko fekk parce que dañ loolu bitig bi dinañu apporter lu bëri ñun femmes yi ba tax na ci côté boobu noonu ñun dañ ciy gën a góorgóorlu gën a consacré wu ci bitig bi di wax jigéen ñu gën a takku liggéey ñu gën a euh, euh, transformer seen produit yi mu gën a baax gën a rafet emballage yi ñu ñëw exposé ko ci bitig bi nga xamante ne mooy Made in Diass bu ko defee Diass gën a dem sa kanam mu nekk nag ab stratégie boo xamante ni maire bu Diass nee na dina leen si jàppale ngir mën leen a dimbale ci seen wàllum autonomisation ci wàllum koom gi jigéen gis-gis ndax loo xam-xam ma sàmba ma sàmba gën laa xam ma dem gën laa xam sàmb kon dinañ jox jigéen ñi kàddu ñu wax li ñu bëgg waaye laata boobu ñun ji dañ fa am li ñu tuddee la discrimination positive ñun dañu jàpp ne jigéen. yile nag nekk ci commune bu Diass ñoom ne neen bile liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def dinañ ko gën a fësal waaye tamit produit loko yi nga xamante ni dañ koy transformé dinañ def lépp ngir yóbbu ko ci aéroport bi nga xamante ni moom mooy Blaise Diagne bu Diass.